nous sommes au bout de cette année de mandature de Macky Sall cette année il y a gën mandargal sept cette année de détournement des deniers publics cette année de bradage des intérêts du Sénégal au profit de l'étranger cette année de gouvernance clanique et familiale dégg naa Ousmane Sonko dégg naa waa man suis ma pétrole Sénégal sur gage du Sénégal. Cette année, cette année de gouvernance méchante, Macky Sall devait utiliser les leviers de l'État. ak xol bu Kouk, qu'on est avec rek adversaire am la mu jël la def la ennemi ne tey ma faagagal la jël ay doomu jambour ay jëkkëru jambour ay popu jambour di leen tëj ci kaso bi jamono jooju mu jël suñu avion ak suñu kérosène ànd ak ak jabaram naan est-ce que mo ëpp droit ñooñu cette année de liquidation systématique de ses adversaires politiques cette année de mensonges d'État cette année de corruption à tout point de vue lolu yëpp ñun ñu tok gisandoo tay ce qui est en jeu Moi le peuple sénégalais doit décider le peuple nag su dee foog na ni toog ci ay salon teg sa ataaya di commenter règle le problème bi la na boppam

tant que nit ñi Ousmane Sonko Bougane Karim Wade wala Seck wala Issa Sall wala faire, dañuy en train de se surtout la jeunesse Macky Sall sont en ko fi se faire, ci cette opposition est incapable de mobiliser les Sénégalais et jusqu'à preuve du contraire dafa faire, wax en dans 5 jours, nous publierons la liste provisoire. Dans 10 jours ou 12 jours, on publiera la liste définitive. Dans 25 jours, nous avons une campagne électorale. Si on est incapable de gagner le combat maintenant, parce que nous, on n'a jamais gagné un combat post-électoral. Vous élection est Badjal, Mousso Gis, qui belle Afrique nous gagné un combat post-électoral le combat tu le gagnes avant les élections te yéen que les conditions qui condition yi Macky Sall tëral buñ ko bàyyee mu ci élection dina def lu neex conseil constitutionnel déclare ko vainqueur bu boobaa nag bu fi kenn di te années de Macky Sall fii ci réew cest la te lii objectif bi troisième mandat parce que nous avons interprété l'article article 27. Vous voyez les sénégalais yi ils sont prêts à signer un bail de 17 ans avec Macky Sall avec njabootam ak ministère ay ministère son système corrompu Nous devons seen tranquillement 17 ans pour ni combat bi combat wu leader politique Vous voyez bu dee nag bëgg nañu au Sénégal Moi, je marque toujours c'est une occasion historique de reprendre notre destin en main la nit ñi suñu